production présente. salaamaaleykum euh, mbokki internet euh, gaston production point com ak aussi euh, post afrique vraiment ñu ngi amaat mbégte àndaat ak yéen tey nag ñu ngi ñu ngi ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy gaston xaali mbeng ñu gën ko xam ci turu la Don King de l'arène ndaxte kat tëgg na fi tàkkusaan bu nekk ñu bàyyi ko rek mu nuyoon teeg yéen Don ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay yéen waa maa ngi leen di fay maa ngi nuyu amateuru làmb yëpp di nuyu Sénégal gépp bala may wax dara nag wala ngay poser benn question d'abord ñu wax ci sunu Lions yi nga xam ne ñoo nekk fële ci Cameroun war a final dimanche ñuy ñaanal leen yéene leen jàmm ñaanal leen victoire ndam li ñëw fii ci Sénégal ñu ànd ak coupe bi vraiment loolu la Sénégal gépp tey kenn talul dara waxi làmb sax tey waru leen ko woon a ñëw fii di ko fi wax loolu waxi football rek euh, lan fi waroon a wax ak waxi ñaan pour équipe nationale football bi ñëw indi ndam li pour Sénégal ñëpp xol yëpp delluwaat ànd ñu koy ñaan fii ñu agsi rek war naa boole xol yëpp final bi mais pour mu gën a neex yàlla nañ ci yàlla dimbali ba nu boole wala ci trophée bi. Euh, Amina yaa rabbi euh, mais nag tey boo gisee ñu seet si la sax ci bañ wax di bañ a wax waxi football euh, mooy Boy Niang dafa am benn sortie bu mu amal donc on va juste rentrer dans le vif du sujet na xam nañ ni sa jot bariwul Père Deme naka nga gisee sorti Boy Niang bi seetaan nga ko. waaw seetaan ma ko quelques extraits parce que après dañ ma ko dañ ma wax ni Boy Niang mi ngi wax et tout ça Boy Niang d'abord sama doom la ah wax lu ma jaaxal. mënuma wax lu garaaw de toute façon li ma jot a dégg rek xam nga gars yi nag suñuy yónnee fii mu gën a ñawee moom la ñuy wax ay père Gaston di wax waxi dil waxi xawma yu kenn xamul ay mots yoo xam ni ma euh, doon mënoon naa ñàkk parce que moom euh, du papaam rek la moom makan ñooy ay moroom ñooy ay xarit mm-hmm. mais suy wax dafa nii man tolluwuma fu may dile ak kenn tolluwuma fu may defee ay magu yi bi ma koy jox avance kenn waxul woon waxi dil parce que boobu su fekkoon affaire dil a ngi ji je préfère bañ a joxe avance tëgg combat jaral lu ma yenn wax yi tëgg combat jaral lu ma yenn yi et tout ça façon combat bu ne comme tu l'as dit tëgg naa ko ci réew mi mais mais xale la comprendre naa ko sama doom la moom makan laa yemale euh, nay changé tout de suite et pourtant c'est un garçon très correct mm-hmm. xaw ma lu ko poussé que wax wax yu demee noonu man na wax ba mu paree ci du du ma ci sax tudd li mu wax itam dama xamul sax ban muus moo ko piqué pour mu wax booy ñaa ñëw na fii ànd ak papaam ak la famille Kandji ñu toog wax ba nu waxee it li ma leen wax ci loolu laa nekk ba léegi mënuma di programme combat yu day ni sama combat yi ci ay mbër yoo xam ni kenn nekku ci en état de lutter pour le moment parce que combat sooy jàpp date bi il faut nga am temps boo defee promotion bi ki feebar amagul certificat de guérison ñëwagunu présenté wu mënuma jàpp nag quant à ay Gris Bordeaux yi jëkk a bëre Gris Bordeaux xamul kañ lay bëre mm. man kenn xamagul kañ ngay bëre wax ji nag bari na nan bàyyi di déglu ay waxi mbedd ak di déglu ay waxi réseaux sociaux wala ay waxi journal mm. man benn komba lay préparé fii ñu toll ma dem régulariser ko sa CNG mooy Eumeu Sène Bombardier loolu moom la ñu régulariser seen beneen combat amu fi kon dafa waroon a xaar ba Gaston ni lii wala nii laa suy suy wax muy soog di wax wala mu demande ay explication parce que de toute façon li wax ku lekk avance tëdd pop ñoom lekk nañu seen avance ba pare suñ demoon tey ba à la limite bëgguloo bëri sax duma ko yóbbu fen xanaa day ñëw rek indi sama xaalis delloo ma mu wut keneen ku ma ko jox pour mu bëri Balla Gaye parce que Balla Gaye lekk na ba mais yooyu eggaguñu foofu man fii may wax yow xaw ma ndax Balla booy Niang lay jëkk a bëreel wala Eumeu Sène lay jëkk a bëreel wala Gris Bordeaux lay jëkk bëreel de façon li may def dinaa ko calculer tey su ma sañoon tey mook euh, mook Balla Gaye ñu bëri mu jeex mm-hmm. parce que ay coowu lamb yooyu dafa euh, dafa dafa dañ ko dépassé ñu de façon ñoom ñett yëpp doon bëri tey mu jëkk a bëri mu mujj a bëri yëpp mais man tey su ma sañoon tey sax tey tey mu jëkk a bëri mm-hmm. mais nag ci kawit ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ci condition mais di bëri toppoo euh, maa ngi baalu àq samay supporter dama faxajoo nag dama nangam nangam ci état bi laa bëri loolu lay bañ a dégg mais wax ji jaru ko fi woon vraiment nit ñi nan bàyyi di eggale ay wax fu mu waxul Balla Gaye taxawul man ni ma kii laa bëgg a jëkk a bëreel parce que Balla Gaye su demee bay wax kii laa bëgg a jëkk a bëreel na tekki ngem taxawagul wax ma ni kii laa bëgg a jëkk a bëreel xam ni rek amee amee na contrat man man mi promoteur bi waxaguma kenn ni combat bi mooy jëkk taxaw far date ba nu jàppoon le 31 juillet kenn mënatu cee bëri tax ndax élection législative la xëy na wax ju bari sax moo nu catu xëy na loolu nu catu sax ba ko dat boobu yàqu donc léegi ca man du ma tëgg combat mois d'août ak septembre ci taw bi donc dara jaru fi jëkkante ba di daw bay daanu nan tey ànd ak correction ñun ñëpp xaar man bi may joxee xaalis pour ñu tëgg làmb pour am ci satisfaction la mbir yi am ci satisfaction amateur yi am ci satisfaction mais pas pour tëgg làmb pour indi coow d'abord ñoom dañu war a dimbali promoteur ci communication parce que combat bu ñëwagul ñun ñuy wëri sponsor ngay taxaw di wax dana am ak danaa def lii ak du def lii loolu rek mën nu handicapé ci sponsoring hmm. il faut pas ñuy seet seen bopp rek mbëri suñuy wax nan seet ni promoteur bi dafa war a jaay combat am na ay propos yoo xam ne kenn waru sax kenn waru ko sax di ko génne ci presse c'est bien. Euh, mais moom dafa ne euh, moom euh, Boy Niang pour le nommer nee na moom daal bu mu la contacter yow da nga ne ko bu fekkee Balla Gaye am na am na wér donc moom lay njëkk bëreel mais bu fekkee amul tan ci yaramam Gris Bordeaux lay njëkk bëreel. su amul tan moom nu muy bëree et puis du question contacter dañ doon waxtaan kenn waxu fii waxu kii lay njëkk a bëreel kee lay njëkk a bëreel. waxtaan dañ doon waxtaan en famille parce que ñoom sama famille lañu. donc du woon no man xam nga man am naa sama fulla ak sama fayda goo xam ne su may wax lu officiel dama koy wax amul kii moo jëkk jot avance kee moo mujj jot avance yu ma xamul. man tëgg naa fi ay classe yoo xam ne ñëppay jotandoo avance ku ma seet nan nit ñi nan la ñuy bëgg a bëreeg yooyu eggunu foofu c'est-à-dire que wax moo baaxul communication ci surtout ñu am combat dañ ko war di seetlu. nañuy sóoraale partenaires yi war a bokk yi bëggoon a bokk ci làmb ji na na nañuy protéger promoteur bi bu nu topp rek seen bëgg-bëgg di wax di sànni ca li ñuy wax yépp dara taxawu ci parce que dara amu ci parce que man mi promoteur bi xamaguma man kañ la ñuy bëri xamaguma kan mooy jëkk a Euh, léegi nag euh, fu ñuy tëjee rek euh, donc Père Gaston mooy ñu mujj ci actualité de la lutte ndax dernièrement gis nañ yéen promoteurs yi ak itam lu mel ni managers yi yéen ñëpp daal les acteurs de la lutte demoon ngeen CNG fale ci mardi pour amal conciliation te gis nañ ni conciliation bi finalement ça satisfait les différents parties donc règlement bu bees bi daal naka nga ko gisee. waaw oh, mais ça va parce que wax nga ko. comme dem nañu toog ak euh, CNG bi li ñu wax yëpp ñu accédé wu ci parce que affaire bi affaire u na la affaire u liggéey la il faut ñu ñuy coordonner di communiquer Bira Sène n'a aucun problème le président il n'a problème déglu nañu et tout ça même am na sax ñu doon def résistance ci CNG bi mais ba mu xamee nii ñii ñooy làmb ci parce que nag ñun ñooy làmb ci ay membres CNG duñu làmb ci mënunoo toog rek costume wala sol sa grand boobu taxaw di décider loo xam ni membre yi ànduñu ci président Macky sax du def lu peuple bi àndul donc taxaw di jaay ay jomba ñaaw ak kenn mësu leen a xam ci làmb defuñu dara ci làmb parce que ministre copte na leen dugal leen ci benn groupe de bu ñuy wax CNG tax ñu defe ni ñoom moom làmb ji ñun Sénégal gii dara jaaxaluñu fi surtout nag ci affaire làmb donc loolu laa wax it Bira yow yaay yow rek yaa fi amee signature gee bi yëpp ministre beneen fal mais yow la jël nga jiite heureusement qu'il a compris tout le monde il a il n'a pas désavoué ses ses ses ses ses partenaires ses ses membres du bureau mais xam na lii dëgg xam na lii nit ñi bëgg xam na aspiration peuple bi mu accédé ci c'est tout mais ñi muy àndal aussi ñi ci ëpp du ñëpp mais nan delloo si seen xel ca tey ca xam ni fii. kenn du fi ñëw pour jaay jomba ñaaw wala pour ñëw pour mottali ko ci làmb ji parce que ñoom ñëpp kenn xamu leen woon ah kenn xamu leen woon ci làmb bërki dem leen ci dugg nan réglé yem yaru euh, euh, respecté nit ñi parce que mbër yi duñu ay dof amateurs yi duñu ay dof ñi seq làmb ji duñu ay dof donc il faut il mérite du respect nañ leen respecté fii Sénégal ñëpp xamante xamante nañ bu baax nag xamante nañ bu baax a baax a baax moo tax ku yebu ku bañu xawisa surtout na nga teey ci régler euh, ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax euh, donc Père Gaston ci éclaircissement yu nga indi alors yéen tamit yéen ñu ñuy seetaan vraiment ñu ngi leen di remercier ci seen fidélité jaa ngeen jëf.